acca mbokk internet di Wassare Lamb Alboury Ndeye waay si tey si sixième combat bi si diggante Boy Bouba écurie Malika ak Seydou bu Sébi écurie Sébi Kotaan de fàttali sànq cinquième combat bi amul si Walanka ak Boy Diop combat ba amul Boy Diop ñëwul di daal jox victoire bi kii di Boy Walanka looloo waral Boy Bouba ak seen bu sëy bi seen bu sëy bi day eh, fàttali benn xale bu jigéen bu ñu waxoon foo dëkk mu ne sëy bi mën nañu wax <laughs> eh, ñaari mbër yee ngay moom moom nga moom ngeen bu xonq bi maanaam rouge <laughs> xale ba ma tuye xale ba ma tuye porte naa ne man maa ngi porte maa ngi filmé <laughs> mbër yi ngi déplacé wu man déplacé wu ma eh jàpp na ko waaw waaw braqué na ko galgal déedéet mu bañ bu ko doxatee waxal lu bëri ñaari mbër yi ngay bëre si porte yaa waaw eh, déedéet waaw daan na ko dem na déedéet ba léegi trois appui sibi sibi xëy na ko deux trois quatre eh, eh, war na ko nangu war na ko nangu déedéet oh daan na ko waay bu ma daan na ko waay waay xoolama supporter yi waay xoolama lii la la nii boo yaa ngay ñibbi boo yaa ngay ñibbi waay waay waay waay mu moo yaay boo yaa ngay ñibbi maa ngi reporté maa ngi filmé comprendre leen ma yee boo yaa ngay ñibbi boo yaa ngay ñibbi bi war a neex ko sif ma yanu na ko sibi daan na ko bu leen ni sibi bu leen neexee ni sibi laa dëkk bu leen neexee bi leen waxoon ne laa dëkk tey nii